di wax ne laata ñuy tàbb ci li nga xam ne moo délégation bi dañuy nuyu surofaa yi fi nekk yëpp tam sax ma war Chérif Slim Aïdara di ko sant gërëm bu baax a baax euh, Chérif Mamma maire Yacine ak ñiwa ñoom ñëpp teew nañu di jóge fi daar Sam Ndogon euh, di sant gërëm Cheikh Daouda Fall bi nga xam ne moo fi teewal Chérif Idouma Aïdara xalifa général kul xaatula daam Sam Ndogon sant kilifa diine yëpp yi fi teew di nuyu préfet di ko gërëm bu baax a baax ak membre CRD yëpp. monsieur le préfet du département de Linguère yow yaa fi teewal gouverneur de la région de Louga teewal fi ñetti ministres yi ci département bi teewal fi ñeenti honorable député yi ci département bi teewal fi ministre de l'intérieur teewal fi son excellence président Al Hadji Macky Sall monsieur le préfet honorable député Ndeye Fatou Guissé macha allah ci gàmm gi macha allah monsieur ministre Samba Ndiobène Ka moom boo séenee oto yi tegaloo dina gis ceeb fees del oto bi dina gis pomme de terre fees oto bi dina gis soble fees dëgg ci oto dina gis boisson fees dëgg ci oto bi dina gis suukar fees dëgg ci oto bi dina gis warga fees dëgg ci oto bi dina gis macarona fees dëgg ci oto bi man xawma suur jëf ko xam Serigne Bassirou Ndiaye figure fayda ba naka noonu ministre ak Hadji Aly Sarr li ma wax ci ministre Samba Ndiobène Ka noonu la naka noonu honorable député Ndeye Fatou Guissé far tabaarakallahu gàmm gi yépp honorable député Ndeye Fatou Guissé defar naka macha allah naka noonu ki nekk sama càmmoñ ku am yar ku am teggin discipline sama kilifa gi ak xaji maa ngi si mu mag ma wa radiyallahu taala anhu daana wax ne ndekante yow bu doon tey mën a jàng yar bana ar bu doon tey ma jàng alxuraan bana ar honorable député Mame Bounama Sall jërëjëf honorable député Aniya Mbeng jërëjëf honorable député Yoro jërëjëf honorable député Ndeye Fatou Guissé jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati sama kilifa Serigne Ousmane Niang sama kilifa Serigne Seybani Aydara honorable député oto yi ëpp na fanweer mu di honorable député Ndeye Fatou Guissé 30 oto man maa ko njëkk a waaye yu ma ko jiitoo bëri délégation fanweeri oto la naka noonu directeur général impôt domaine man ñëpp samay njaboot yoon te man du ma contrôle buur nag président Macky Sall la naka noonu Idrissa Samb naka noonu Idrissa Samb impôt domaine ak ñu mu ànd ak ñëpp naka noonu nag président Excellence ak Hadji Maram Sall ah yónni délégation bu takkoo takku président jiite que mu di Serigne Alxaaji Leyti Maram Ndiaye ak ñu mu ànd ak ñëpp naka noonu parti opposition yi yëpp teew nañ parti opposition yi day gàtt day am yar day am tey opposition parti yëpp teew na ak parti boo mën a nekk waaye man nag président Macky Sall la du ma kontoor buur te mosuma kontoor buur ànd naa ak Senghor ànd naa ak Abdou Wade Macky Sall ëllëg kuy toog ku fiy jóge yàlla xam euh, Serigne Babacar sama soppe sama xarit waaye Seydina Mouhamad yonent bi moo gën ak Hadji Maguette waaye Seydina Mouhamad saga sa moo gën maam Serigne Touba ku mu neex ku mu naqe waaye sax naa tànn Seydina Mouhamad jege si ma fi sans pegg Mouhamad ñan fukki kaam yi ak juróom-ñett yee jóge taxaw na jël par benn di indi dama ci kaw taabal bi dama ci taabal bi par benn benn li ñu def mooy fekk ku lumbal waane ñëw nga nag sa kër bay ñëw nga fi sa maam booxo daan rootee si ñëw nga fi alaaji Amadou wan daan ñëw ndax sa a ngi nii toog ñu tuddee ko sayar baaba sayar baaba ndumbe bu toogee rek alaaji da delloo mbàtt ca ndaa la ndax tey ku waajur yi bu ñu yeewu woon rek xool la ni nga doxalee rek dañ ñu ñaanal ñu tëddaat waaye bala maa sori Mouhamadou Lamine Baara Sall mu ñu dëppee Mouhamadou Lamine Baara mi ci kadd gi bàyyi sëñ Sidi Maxtaar mi ci guy mbind mi ngi nii toog di kenn ci ñun ndax wax naa ni tey buñ fi tegoon palaatab ganaar mook maam bu naa ma sàll ñoo ñu ci njëkk ñuy kenn ci ñun nuy baax honorable maam bu naa ma bu nu jëlee bés bi tuddee ko yaay ndey ma ngaan tuddee nañ la ko wax naa ñett laa xam ci yow boo demee Dakar député nga boo ñëwee Daara rakk nga waane boo demee Touba taalibe nga doo soli daal ñett yooyu ma xam ci yow boo ñëwee Daara da ngay sànni sa écharpe fële xam na ne say maga fi ne nga jox ñu cër bi waane boo rombee Touba rek taxaw ci APS bi takkaat. boo demee Touba nag raam ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla dolli sa taxawaay ñaanal famille bi yëpp alaaji bés bii nga jël jox ko suñu yaay ajaratu Seyni Manga Seyni bu toogee nii di suñu mag jiite délégation bi ànd ak nday mangaan ak ñi mu war a ànd ak ñépp ngi si kontaan nañ bu sirgaane yeewu woon alaaji amadu woon yeewu wala alaaji maxtaar xool li nga doxalee tey alaaji amul lu lay wax lu dul jërëjëf ah seer ku la du duma duma ma wóorut ku la duma duma ma wóorut waaye ku la duma ma duma koo gën a wóor ajaratu ndey ma sagal nga yal na la yàlla sagal ndax lii nga def bi la ko alaaji joxee keroog ba nga defee annonce bi dana képp ku saay bokk moo xam Espagne nga ne moo xam Ndakaaru lu ko wër def déclaration alaaji jël na bés bi jox ko sama yaay Seyni Mangaar te ko xam Seyni Mangaar xam na ne bokk na paas suñu mbokki paas yi ñu ngi nii toog ñu ngi leen di nuyu bu baax waa Mangaane na ngi nii toog fëri Mangaa nang fi ànd ak waa paas gi yëpp ak waa Gati kon alaaji bés bi xat na lool waane alaaji suñu ngërëm ak cant am na fu mu commencé waane amul fu mu yam ndax lii nga def def nga loo xam ne nii toir kàll am na fu mu ñu àgg ñi mën a ñëw ñëw nañu ñu munta ñëw tamit yónnee nañu ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla musal nu musalee asamaan ci max yàpp mbaam xuux ci tabaski meewa mbaam ci tamxarit rek loolu rek lan la mën a ñaanal yàlla sàmm la ndax lii dong ñoo sagal taxawuñu lool àddu ko mu njaay nuyu naa la nga nekk fii chaque année ma lay fekk ci tànt bi yàlla na nga fi yàgg teewee suñu doom bàyyi nga di suñu lépp tey boo jegee alaaji ñu duppee la aada kumba mu mag ma mbokk bàyyam abdu ak faama rek loolu rek doy na alaaji bi même ngeen ngeen bokk ngañ kontaan nañu lool xam naa ni seer kilifa yaa ngi toog te toogaay bi yàgg na waaye luñ tibb rek jëmale ci alaaji rek lu ñu xeeb la gërëm nañ la bu baax. ñoo ngi leen di nuyu nag ci turu Cheikh Babali sa gise moom Cheikh Abdoul Khafour ah bés bi nag ku ne xam na ne moo amoon yéene ñëw ànd ak ay rakam teew ci moo ko ajaratu soxna njéemé ak mboolem njaboot gi dangeen ngeen ko waxee sànq soxna kumba ma ci kër gi ndax ñoom bés bi egg na ci ñoom foo xam ne daanaka gàmmu lañ ko def xewal yang ngi ca kër ga gan yaa fa tabaarakallaahu moo tax soxna kumba gisoo leen ko fi ah alaaji maxtaar dafa wax léegi lu am solo wa ma sainna ila bi ma alim na wa ma kunna lil ghaybi al nit mënul wax lu dul li mu xam bu ñëwee daara jolof ni mu mel day mënuma ko wax parce que dunduma kook moom waaye taalibe gi mu wax bu ñëwee Touba loolu moom mën naa ci fëgg kaamil na doom ju mu am jébbal na la Cheikh baaba te et ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay moo xam Mayib la moo xam xaadim bi nekk Espagne wala Ahmed ku mu am ngay doomam jël na la yëkkati la jox la sëriñ bi kon sëriñ bi ne ginnaaw bi mu santee say nga xam ne moo jiite délégation bi mu ngi gërëm soxna Ndeye Magane bu baax a baax a baax a baax jàppeewu ko moom mag moom la sëriñ Fallou defoon ak sëñ tubaa noonu la soxna Ndeye Magane mii def ak Cheikh Baba du wax ak moom di ko ti mukk fu mu ko jubee sukk na lu muy woote kenn mënu ko ci lettre addiya yi nga xam ne ñu ngi koy joxe kenn mënu ko ci kon sëriñ bi ne mi ngi koy sant bu baax ginnaaw bi mu santee say magam ah ñu ñëw nag ànd ak ay jëwrin sëriñ Aale Mbay mi nga xam ne moo jiite section Daara sëriñ su Diallo bi nga xam ne moo jiite section Ndar ak sëriñ Jibi mi mi nga xam ne moo jiite fédération Ndar Jolof bi ak Ndar ñoom la ñu àndal ak Serigne Mouhamed Dieng mi nga xam ne moo jiite kuréel xasida bi Dakar ñoom ñooñu la ñu àndal tey ci bés bi ah ki ñu jox bés bi nag muy soxna Seyni Mangane la nga xam ne maam Samba Diarra mbay la mu waxoon sëñ Touba jëmale ko ci soxna Diarra way woowu rek laa koy wax maam Samba jaara mbay day xool day xool day xool soxna Diarra ba mu yàgg ne ko bikki sa naxtu rida qad aasa qad aasat faxsiratan biki sanaxtu irada wal aasu tabsiratan qad aasa imniki maa lam yaxwi al abraar day xool soxna jaare ba mu yàgg ne ko bu la neexee man nga puukarewu ndax sa doom de làq na loo xam ne gaa yu baax yi làquñ ko woon ku ne xam ne ne ajaratu Seynu Magaan liggéey na kër maam Amadou Wan loo xamante ni tey tey lu mag ñu baax ñu doon liggéey seen kër borom kër yi soxna ajaratu Seynu Magaan liggéey na ko fa ndax bu lool bu loolu lii du feeñ tey Cheikh Baba du feeñ soxna Ajaratu Ndeye Magane mii du feeñ boo xoolee la maam Moussa Ka waxoon soxna jaara daf ko waxoon ne ko ab liggéey may maam Mor jaara waaye yéen a jaay bamba yéene moo app ak pay jëf moo waral mu am bamba waaye boo xoolee soxna ajaratu Seynu Magaan ab liggéey may Cheikh Baba waaye la mu amoon yéene defal ko maam Ahmadou Wan gise tey mooy soxna ajaratu Ndeye Magaan mi loolu Serigne Moussa waxoon na ko soxna jaara mu doon soxna soo xam ne ku baax la doon soxna soo xam ne ku mën a joxe ñam la doon soxna soo xam ne ku yiiw la waaye man ci sama jëmmi boppam mos na maa wax wax ju yéeme muy soxna ajuratu Seyni Mangane mi seen waajur mos naa mos na maa wax ne ma xaadim ma ne ko mbàkke mu ne ma mbaay nga ne kii ngeen àndal tey bi mu demee ba mu leer ma ne moo nekk ci sama biir bi waxtu wu ne daanaa gis sañ tuba loolu moom ma ko waxoon ne ma bi nga demee ba nga xam ne kii ngeen àndal tey dem naa ba yëg ne moo ne ci sama biir bi mosuma tëdd guddi te géntiwuma sëñ Tuubaa wala ma gént ku bokk ci njabootam muy ko jàppale nag sëriñ bi nan ngay xamee ne jàppale na sëriñ bi mooy ñun ñii tey ku ci daaneem Touba boo jaaree ci ajir si Seydou Mangane dana yëkkati jox la ko loolu loolu lu wér la kon ñu ngi ñaan yàlla na ji àjjana. sëñ Bass. fi mu féete administration te loolu du lu ma leen di wax lu ngeen xam la mooy loo xamante daf koy def te yàlla tax ndax bu ko doon def ndax nit xaj na bu fi kenn jógee mu changé doxani waaye ni mu ko daan doxale ñi ma fi jiitu nu ko raw la koy jëflante ak man noonu la koy jëflante ak chef service yëpp te bari na luy xew daara ma yëg ko moom la te administration ku ne xam nañ ne gouverner c'est prévenir am na loo xam ne soo ko yëgul bu taxaw doo ca mën a taxaw taxawaay ba nga war a ci taxaw te loolu moo ñu fi féeti lépp lu gis lu yàq dina ca dox dina ca wax bu gisee luy defar itam dina ko dina ca dox dina ca wax kon loolu amel nañ ko cant boo xam ne am na fu mu tàmbaleel waaye amul fu mu yem lépp lu njëkkati aussi ci manifestation da cay jàpp la ca mujj rek mooy journée de l'élevage bi ñu organiser fii këram la génn jox ñu te ku ne ku ne xam na ba ñu laaj laale école yi coow la coow la ci tukkee woon ba ñu walbatikoo ku mel ni ñu mel ni moom ñoo ñu dimbal te moo ca jiitu te xaarul sax ñu laaj ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu lu am solo la te muy référence nag di exemple de citoyenneté ndax koo xam ne am na 66 ans di dox wala di jëf jëfi koo xam ne dangay ngay da ngay yaakaar ne 30 am. loolu engagement weesu ko kon dañuy ñaan yàlla gën la dëgëral gën a fekk saw fan euh, ba taxawaay bi nga yàgg koy taxaw gàmmu gi aussi nga yàgg di ko taxawal te muy jëm kanam ci lan cay séentu yépp yàlla defal la ko allahumma waxfad alayna qaadatana fi ddiini wajcalhum a'immatan yahduuna wa yahtaduuna wa yurshiduuna ila sawaai siraati almustaqim wa janibhum alzaga walahwa wa kayda alaadaa